wàññi njëg bi ñëpp la arrangé euh, du moment où ñun ñëpp dañuy dañuy dañuy consommer mais ñun aussi euh, wàññi bi bu ñu wàññee il faut mu am ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne moom moo ñuy jàppale pour ñu mën a supporter wàññi bi parce que notamment charge yi ñuy am comme euh, droit de douane xam nga am na charge yu bëri yoo xamante ne importateur bi da koy am te nit ñi duñ ko xam charge yooyu il faut état bi jàpp ci parce que tey état importé wul importateur bi buy buy euh, société la yor dafay dafay dafay dafay leb xaalis dafay leb ci banque yi euh, dafay jënd ci fournisseur yi dafa am paramètre yu bëri yoo xamante ne ñoo entouré l' activité d' importation ba nga xamante ne bu fekkante ne état décidé na wàññi dafa war a également étudier paramètre yooyu yëpp ba nga xamante ne kenn du gaañu parce que importateur bi consommateur bi ñun ñëpp ay sénégalais lañu.